vraiment yàlla booy na nu yàgg trop macha allah maa ko xam nga xamante depuis deux mille deux. Mhm. may tegal ay combat mhm. bëgg ma lool aussi. Mhm. tey foofu nu ma xàmmee ginnaaw yàlla moo tax parce que jamono jooju fu mu toog wuli sama doom wuli sama doom di ma sagoo di ma tiitaroo ma ne tam vraiment. ma koy sago sama doom bi ma jëkk a am moom laa ko. Euh, tudde ma amaat doom ma tudde ko jabaram mu yaay ndey Marème muy nit ku baax nag vraiment tey daal Sénégal gépp a ñàkk bilaay walaay mënuma sax wax tey parce que euh, wax dëggu sell tey c'est yéen jikko moo la gën a neex ci El Hadj Gasson ba tax nga tuddee ko doom parce que taaw doo ko tuddee waaw jikko bu ma neex la ci moom mooy nit ku dëggu la nit koo xam ne la ku baax la ku am colère la wax dëggu si yàlla bi ñu àndee ñu ànd ci ci ngor man naw ko aussi ci njabootam dama dem këram ma gis ni mu fonk njabootam fonk ay doomam vraiment muy xol buur rafet la yor bak si na ma booy nag boo ko jegewul doo ko xam mais Gaston kenn gënu ko xol bi lay waray taala man mi man man yàlla dafa dogal 2002 ba tey mos ñoo xuloo mësuñoo werante mësuñoo melo bi laay walay taala joxoon ma cër ruus ma man tam vraiment ma ruus ko tey daal vraiment ma dul mënuma wax lu bari parce que war dama sama papa sama baay parce que dafa dikk ba reefan ñaari yoon seet si ma barke si naa Mohamed sama baay bi ma jur ne ko jox naa la ko sa dooma tey ay doomam yëpp ma def comme rak ku ci gis da nga may jàppee mag ak raak bilaay walay taala maa ngi leen si am bu baax a moom daa day monté nii quoi c'est bon alors bokk interne bi ñu euh, ngi ko ni nga ko gisee ñu ngi fii nga xamante ne moom mooy hôpital euh, principal euh, donc précisément ci morgue bi pour assister levée du corps bu suñu papa Gaston Mbengue. Gaston Mbengue nag nekkoon nit koo xamante ni vraiment apporté na lu bari ci Sénégal surtout ci lamb particulièrement def ci lu am am solo bu fi tuddee ko le Don King de moom moo fi bàyyeekoo nag ni démb donc euh, juste après combat wu ki nga xamante ni mooy euh, euh, mooy mooy mooy mooy bombardier ak franc fële ca arène nationale ginnaaw gi rek la ñu gis ndeysaan presse bi ku nekk di yuuxoo ko jooy ñu xam ne nag vraiment am na lu xew ci la ñu laajee ñu ni ñu Papa Gaston moo fi bàyyeekoo ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko d'abord xare ko aljana woyofal suuf ci kawam mu nekkoon nit koo xamante ni vraiment li ñu gën a remarqué ci moom mooy ak dëggoom ak nangoo liggéeyam ndax koo xamante ni vraiment dafa jugee Louga ñëw Dakar dëggal boppam te bi muy ñëw dëgg ngeen histoire indiwul dara Euh, reyante ba nekk fi ba dégg fi daal yi donc kooku mérité na hommage bu nekk fii ci réew mi ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko vraiment xare ko aljana mais li ñuy gën a retenir ci moom rek euh, comme ni ñu ko waxee sànq mooy sa franchise ndax dëgg moom lu mu tàng tàng dina la ko wax. donc euh, ñu ngi ziar bu baax Fadel donc mu ngi noonu émission yi noonu ngeen di gis. donc yow kàlla bi solo Malick fii. Malick dugg na dugg na dugg na Malick li ma woowee heure bi laa xam ñëwoon si bâche heure bi de. yéen ko suba mais man damay suba saa yi ma ànd ak ànd ak moom si saa yi. am saa may woo sànq ba léegi. wuli wuli wuli wuli. jërëjëf mbokk internet yu impro ñu ngi leen di sant bu baax di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tey ñu ngi fii ci hôpital principal David Kor suñu papa Gaston Mbengue tey ñu koy wàcce ci moo war a jël doom yi hmm. noo ngi sant suñu borom ci salaatu wa salaam di siyaare ñëpp di balu ñëpp ak di baal ñëpp ak di ñaan yàlla suñu borom ci jëmm yu tedd yi fi toog Gaston Xaali Mbeng yal na ko yàlla suñu borom yërëm te jéggal ko kàddu yu mën waaye quatre laa ànd ak Gaston makan mi di su na ko paat ci bi mee topp ci Gaston ñu bokk ndeeg ba fekke na ko ma créé Gaston production sept cent mille francs 92 ba 94 maay nommé combat yi maay arbitré lamb yi tabaski naa Louga bàyyi sama kër bàyyi sama soxna ak sama boobu Abdoulaye Sow mooy ministre de l'intérieur tudde ko lamb ji Aminata ministre de la femme ak ak ku ñëme péete koo xam ne ku Gaston dafa jàpp ku mu sant Mbengue Fokk ci famille Sabaare mi jur xaalis mi ko jur Gaston la war a jàpp gaminte lool fonk ko ndax damay benn bu gàtt ci digganteem ak Youssou Ndour premier bi Youssou Ndour jëkk a ubbi ci àddina mi ngi nekk si en face kër Alaaji Umar Kan parce que booba dañu tëgg manga numéro deux séréer yi contre manga naa sama kàddu Gaston lu ñëw ci Youssou mii ne ko lambi manga ak morgue rawas bi xaalis a koy def te 700000 francs lañ am comme à capital Youssou ne Gaston yaay sama mag di sama xarit bu soobee yàlla yonent bi lépp lu war ci làmb ji danaa ko def loolu moom rek laa bëggoon a leeral di wax ni Gaston këri diine yëpp la jox ko woon ñëpp la am affaire di nit koo xam ni kii doomam yii jëpp seen bàyyi bi may ànd ak moom magan mii day raam magan mii mu ko tuddee fekke na ko xar mi ko ngénte maa ko fees kon ñu ngi ñaan yàlla ko yàlla xare àjjana Abdou Aziz sa baay Gaston li ci ma arrêté de non ah. voilà ah. bi may ànd ak moom quatre vingt kenn àndut ak moom maag balaa mbeng magam mi seen ñaari baay bokk ndey baay te bés lañ ko deseel ku yàkkam ci nga dem koo xam ni bu boo bu ngeen gisantee yaa ko fekki nañ ko ñaanal te ko la la nga xam ci moom ci lu baax nga wax ko Abdou Aziz jërëjëf Paala jërëjëf Alaaji Basir Pape Diagne jërëjëf ñu ngi gërëm Cheikh Seck góol mi ngi fii ci ginnaaw Gaston dafa am ñum àndalan ci liggéey ci ngor ci jom Cheikh Mbacke Ndiaye jërë ngeen jëf maa ngi leen di gërëm di leen sant ko yàlla xare àjjana amiin Abdoulaye jërëjëf maa jël sa loxo teg la ci loxo ga xoole leen nga ànd ak moom doon taxaw ànd ak makan mu madame Mbengue jërëjëf a ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal bi lu dul sant Mbengue def naa ko ci jërë ngeen jëf. waaw kooku mooy Baye Xarim Samb waxee na nag dënn ndax dañoo bëggoon a maîtriser temps bi parce que nee nañ 11h war a denc Gaston waaye moom nee na du arrêté ndax li mu xamal Gaston dina ko wax. mais nag Gaston ndax lii la ko deseel nekkul nekkul n'importe qui aussi. effectivement waaye waaye waay wax na daal ba dënn bi tàng. soo xoolee ful bi rek xam ne kii. Mhm. comme promoteur aussi n'est pas comme le personnel ça dañuy collectif collectif effectivement effectivement Gaston euh, li ñu si mën a jàpp Kalidou mooy ndeke Gaston production tur bi ci Xaadim Samb li génne te nag li mu njëkkee li mu ko njëkk a tijjee mooy benn sept cent mille francs donc àddina li ñu ci mën a jàngee rek mooy góorgóorlu rek boo góorgóorloo suñu borom fekk si la gëm sa bopp te liggéey man mos naa dégg mu ne balaa ma ñëw njaamu la jóge woon ni mbuus mbuus mm-hmm. la indi woon mais balaa mu ñëw bala lay yóbbaale donc ma man comme yow comme keneen leçon la pour ñun mm-hmm. effectivement effectivement c'est une leçon parce que àddina suñu borom dani la nga jaamu yàlla ba yaakaar ne tey ngay dee waaye liggéeyal ba jàpp ni it dootoo fi jóge euh, mu doon lu am solo mm-hmm. effectivement Gaston Mbengue yàlla ko yàlla yaram xaare ko aljana donc gis ngeen màng 2 ma ngi noonu moom lañ doon joxe ci exemple bi sànq moom lañ doon tëgg ko mbaa bi dese 700 mais ñu dem bureau Youssou Ndour pour mu jàppale leen gis ngeen euh, ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Tidiane Gadio le ministre dend ak ki nga xamante ni moom mooy Youssou Ndour ndeysaan c'est le Sénégal en moo nekk fii tey Youssou Ndour ma ngi noonu Youssou Ndour a ngi noonu ci ginnaaw Aziz njaay Aziz njaay moom moo tax mënoo leen ko gis bu baax mais teew na bokk na ci njëkk ñëw xam nga moom il est toujours discret bu ñëwee ci ginnaaw. ci dara. Mhm.